waaw kon ginnaaw bi ñu paree ci Soxna Jaara ñi ngi da ñi ngi toog ak euh, ci mbokk yi muy Serigne Saliou Diagne euh, nekk fii ci Touba ba waaw ñu di ko dalal xanaa di ko jox kàddu gi euh, mu présenté boppam wax fi mu jógee ci Sénégal Serigne Saliou ñu ngi lay ziar. waaw Serigne Sow maa ngi lay ziar baax a baax di nuyu di la ziar di ziar suñu waa ji waaw maa ngi tudd Serigne Saliou dëkk Pikine waaw. waaw kon Serigne Saliou moom mi ngi jugee dakaar pikin Serigne Saliou lan moo nekkoon sa objectif ba nga bàyyi Sénégal ak ban métier nga fa doon def ba ñëw fii ci Argentine. waaw man moom téer laa woon doon liggéey Sénégal maximum mag ak sama waaye danoo ñëw fii rek pour maanaam gën a xam gën a xàmmee ndax góoram bala mat góor dëgg dafa am génn xam kum doon moo tax ñu génn ñëw fii nii daan suñu doolee waaw wax dëgg yàlla nag rëccuwuñ ko yoon ndax fii wax dëgg yàlla ñu sant yàlla wér-wér alhamdulilah. waaw Serigne Saliou bi nga ñëwee fii ba léegi am nga loo regretté ci ñëw bi nga ñëw fii wala am nga loo xamante ni jànge ko jànge nga ko fi wala lan moo la gën a neex fii nga xamante mooy Argentine Córdoba. waaw fii moom wax dëgg yàlla moom alhamdulilah ndax gars yi moom ñëpp nañ jàmm am salaam liggéey leen xam wàcc dem ñibbi seen kër xam ni leen lu loola dëgg yàlla gars yi moom ay jàmbaar lañ waaw fii moom ku fi ñëw liggéey fii am fii sa am yàlla xam nañ sax pour nga dox sax ba gis ku taxawal sa am fi dëgg yàlla. Mhm. gars yi mooy ay jàmbaaraan dëgg yàlla ay jàmbaaraan. waaw lan mooy li nga xamante ne mooy jafe dëkk bi ci wàllu liggéey euh, bu ñu seetloo am na ñu nekk ci mbedd mi ci yor ay mallette di ambulant ak euh, ñi nga xamante ni yor nañ ay place yàlla dimbale nañ ñooy am ay place euh, jafe-jafe yi nga xam ne moo fi am ci diggante sénégalais ak municipal bi yow loolu lan nga ciy wax. waaw loolu lu ma si moom dëgg yàlla danaa yaatal ndax man di wax ak yéen nii nekkoon naa si case bi doon ambulant yàlla def na ñu sama bagage ak ñeneen ñeneen waaye nag dunoo génn daal nekk ñëw si dëkk ñu lay maltraité mais boo xoolee rek doo fi liggéeyee da ngay góorgóorlu rek mu dee sa bagage nga dem toile leneen kase ndax fii dëkk jàmbur la moom ni fi doo ñëpp daan doole kon lu def leen lu lu bëgg rek dana ko def rek. waaw beneen question bi ci topp mooy Serigne Saliou maanaam place fi yan taxi ak euh, yi nga xamante ni moom la leen état di teg ba maanaam man nga ñu ci leeralal ndax euh, nu muy demee. waaw fii moom bu dëgg yàlla moom met place moom mett na lool place moom mu dëgg yàlla boo duggee amoon demañ sax faaw ndaw génnaa si ndax taxi yi bu dëgg yàlla municipal bi ak yi ñeneen da nga fay fay ba yaakaar sax yow maanaam dërwaas si kaas bi sax mooy gën mais local moom moo gën casier ndax waaw moo gën daal dëgg yàlla moo gën ku gars yi moom dëgg yàlla ku mën indi mu gën yàlla dama ñëpp am local toog seen local parce que moo gën si liggéey bi daal ndax municipal bi mun laa tere mun laa bàyyi ci casier bi ngay jaay loolu lay métti trop trop trop dëgg yàlla. waaw Serigne Saliou kon xam naa dañu lay jox beneen question rek euh, lan ngay wax jeunes yi nga xamante ñoo nekk senegal am yéenay ñëw fii ci dëkk bi nga xamante ni mooy bitim réew. loo leen di loo leen di conseillé ndax gis nga jafe-jafe yi fi nekk ni nga ko yaakaare woon bi ñu fi ñëw demewul noonu xëy na dañu jàppane bu ñu ñëwee xaalis bi dañ koy for mais demewul noonu léegi lan ngay conseillé jeunes yi nga xamante ñi ngi senegal euh, jël seen xel yëpp def ko ci tukki. waaw xam nga nit moom bu nekkee xale bëgg a liggéey ñu la bul ñëw loolu moom maam loolu day mel ni genre leneen moo tax ku bëgg ñëw rek ku bëgg ñëw fii yàlla yàlla su borom def nga ñëw jàmm salaam ndax. dëgg yàlla ñu nekk fii moom rëccu wuñ lu ñëwee fii nii kon nag képp ku bëgg a ñëw fii yàlla su borom def nga ñëw si jàmm waaye nag xaalis moom nekkul da nga ñëw rek for dem déedéet faaw nga liggéey yàlla xam ne di nga liggéey ba yaakaar sax yow mm, mooy loolu waaye nag sant yàlla daal sant yàlla wér wér ñu sant wér wér alhamdulilah. waaw suñu question bu mujj nag euh, dañ la koy dañ la koy jox muy lan ngay wax waa Sénégal ban message nga yónnee sa waa famille sa kër say mbokk say xarit. ndax euh, ñoom dañuy jàpp ne à chaque fois rek maanaam yaa ngi koy man ndax euh, ñaare sax bu ñu la waxee soxla fajoo ko dañuy jàpp ne da bañ ñooñu lan nga leen wax ak ban situation nga leen wax ne maanaam réew mi fi lay toll ndax nekkul ne bët bu set da ngay man wala bët bu set da ngay am. waaw loolu moom ñàkk xam la xam nga nit moo nekk Sénégal moom moom du mën a xam li nekk ci xew fii ndax mooy nekk fee xam li nekk fii mënul nekk mhm. waaw yow mi nekk fii nag yaa xam buñ la waxee seen soxla boo ko mënee nga def ko bu mënul nga leen waaw nga xam daal ngeen wax moo gën daal ngeen laan waaw te li ngay wax te li ngay wax xamoo dara dëgg yàlla sant daal daal sant yàlla bu baax ba alhamdulilah te wax nag état bi mu jàpp ñu bu baax a baax ndax fii ñu nekk nii ñun ñu ngi nii ñu bari am nu këyit am ñu dara ndax ñàkk ambassade ci dëkk bi. waaye ñu wax daal moom président bi bu dee dégg na kàddu gi wala keneen ko jege dégg na kàddu gi ñu fexe dimbali ba fii Sénégal am ambassade bu ba ku nekk boo ñëwee mooy liggéey si tranquille am kayit si tranquille mën dara seen njaboot ndax dëgg yàlla bàyyi seen njaboot Sénégal ñoo toog fii liggéey te amul kayit amul loo demee bu dëgg yàlla loolu moom métti na lool dëgg yàlla. kon Serigne Saliou cant ngërëm ñeel na la di la jox euh, dig daje ci yeneen jataay ci beneen émission Modou Modou yi. jërë ngeen jëf fi ñuy tëjee nag mooy euh, état Sénégal ñaxtu yi bari na. message yi bari na waaye fii seen i doomi réew fi nekk di daan seen doole am ay droit ak ay àq yoo xam ne dañ leen ko war a delloo kon ñi ngi lancé appel ci état Sénégal ci président Macky sàll mu xam ne fii ay doomi Sénégal ay doomam ma fi ne te ñëwuñu fi pour leneen dañoo ñëw pour liggéeyal seen réew kon donc war na lañuy jàppale ci utal ci wut euh, ambassade. wala consul fi ci dëkk bi ba yenn papier yi muy mën a jàppandi ba ni ñu koy bëggee ñu koy amee noonu ndax ab lima ngi fi kon war ñu jàppale ñi ngi tàllal loxo état nag mu dugal ci loxoom kon mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen jotaay.